ربي أحمد على محمد حلي خير الصلوات سمد ربي أحمد على محمد عليه خير صلوات سمد بارك لي اللهم في حياتي وجل فؤادي وتنالي bismillahi irrahmani irrahim alhamdulillah tey may sunu juróom benneel <clears throat> juróom benneelu jotaay sunu juróom benneelu bind insha allahu rabbi ci sunu téere xuqal bukaau sëriñ bi moo ngi tàmbalee ci yamxu bi taqwan xuduran nafsi jumlataha yaci culuman min almawla sa niyaati gaañu baax ñi ba léegi mi ngi ci ñoom rek nee na koo ci gis yamxu day effacé yamxu day far lu muy far mu ne xuduuran nafsi cëri bakkan jumlataha ñoom ñépp lu mu koy fare mu ne bi taq wan ci ak ragal yàlla yaay dana wattu moom nituk yàlla ki uluman ay xam-xam minal mawla yoo xam ne ñu ngi jóge ca kilifa ga sa niyaat yu aji yëkkatiku yu aji gànjaru ñoom xam-xam yooya ne nit yàlla yi dañuy fexe ba say saytaane bànneex bakkan ak àdduna du ñu am cër ci ñoom waaye tamit dañuy yar seenu njaboot képp ku leen bàyyee sa bopp dañ lay yar fexe ba sa bakkan du am ci yow ab cër xam nga bari na lu ñuy def lépp dañ koy tekki rek ci bakkan mooy nit ki lépp lu ko neex rek sa bakkan ak sa bànneex te di nelaw bëgg noflaay bëgg bëgg am daraja bëgg di wax nit ñi di la déglu euh, bari na bëgg a siiw waaw nee na ñoom nag ragal yàlla gi ñu am ci lañ fexe ba dañuy effacer mboolem luy ciri bakkan lépp lu ñuy def rek bakkan du ci amub cir waaye tamit noonu lañ mën a yare seenu njaboot tarbiyee leen ba bakkan du amati ci ñoom ab cër maanaam lépp lu ñuy def yàllaay tax waaye bakkan du ci amub cër mooy xusuusan nafsi ndeysaan ñoom it koo ci gis suñu boroom subhaanahu wa taala da koo jox ci ay xam-xam yu yëkkatiku ay xam-xam yu tedd yoo xam ma nga bàyyi koo fa moom waaw ma nga bàyyi koo fa moom wa allamnaahu min ladunnaa ilma waaw xadir yàlla neen dama ko jox xam-xam yoo xam ne bokkut ak yi ngeen di ci téere yi xam yooyu mu ngi jóge fi nun ndeysaan bokk na ci seeni melo yub dii dana feeñal moom nituk yàlla gi fekk mbooloo ma la ca jublu tariqata ahlillaahi yoonu gaayi yàlla yi waadixatan mbir mu may aji leer lil muhtadiina ñeel way gindiku ñi jamee an ñoom ñépp bil fuyuudaati ci ay bëbb mooy ay may yu baawaan nee na koo ca gis nag dafa doon yonante bi sallallahu alayhi wa sallam la ko tax jóg mooy leeral yoonu yonante bi ba mu leer naññi ba ñi nga xam ne jub rek moo leen yitteel ku ci bëgg a sóobu rek nga mën caa sóobu nga mën caa sóobu mën a làq ci may sunu borom yi subhaanahu wa taala loolu sëñ Tubaa ne nadaafatuhu kulli min allawi taharat wa sunnatahu inshaa rabbi ubayinu ñoom nit yàlla yépp ndeysaan nit ñu baax ñi nit tasoo fi dëgg-dëgg leeral yoonu yàlla rek moo leen di moo leen di tax a jóg ndeysaan kullun képp ci gaa yi may wax lëxoo am na himmatun yitte yarqa yitte joo xam dana yéege bihaa ci moom abada faw fu mu jëm ilaa azizin jëm ci aji tedd muisin kuy aji terle bil futuhaati ci ay ubbee nee na ñoom nit yàlla yi dafa bokk ci seeni jumtukaay mooy am yitte ju kawe waaw nañ ko am yitte ju kawe mooy seen mooy seen lan mooy seen waruwaay yitte ju kawe nee na seen yitte jooji nag ci la ñuy yéege waxtu wu jot ñuy gën a am pësteef di gën a am yitte jëm ca yàlla mi aji tedd te ko àgg ci moom mu teral la lam lay terale nag boo ko daj ay futuxaat futuxaat mooy ñi nga xam ne yàlla daf leen di fàttaxu mooy dañuy xam ay mbir di gis ay mbir yoo xam ne du ñëpp a koy gis ci coobareem loolu da ko dale ca yonante ba ca saxaaba yi ñëpp yàlla daana leen may yu mel noona ndeysaan yaraa dana gis alxafaaya way nëbbu fu mu koy gisee xanaa du bët yi mu ne déedéet bi nil xol bi ci bëti xol la koy gis zahiratan ñuy way leer ah, da leen gis mu leer nañ kama yushahidu naka lay jàkkaarloog maa la nga xam ne taxtal akinnaati nekk na ca ron yu nëbb ya nekk na ci ron yu suturo yu la yu nga xam dafa suturo dafa nëbb ne ñoom suñu boroom eh, daf leen di may xol bu leer xam nga xol day gis waaw li ñu tuddee ak basar basar mooy gisug bët basira nag mooy gisug xol waaw gisu xol alquran nee na wala hum ayunun waaye laa yubsiruuna biha am na ñoo xam ne yor nañ ay bët waaye dafa mel ne duñ ca gisee waaw lahum xulubun laa bi biha am nañ xol de waaye xol ba nag dañul gis dafa gumba yàlla nañ ci yàlla musal waaw suñu borom a xoone ci beneen barab fa innaha la taamal absaaru walakin taamal xulubu allati fi sudur nee na xol mooy gumba waaye bët yu gumba moom du dara du dara li bon mooy xol bu gumba yàlla na ci yàlla yàlla na ci yàlla musal nee na ñoom ñii nag dañoo jaamu yàlla ba seen xol leer di gis moo tax day bari yu nëbbu yoo xam ne ñëpp duñ ko mën a gis ñoom yàlla de leen di may ñu di ko gis jàkkaarloo mu ne fàng zahiratan mu leer naññi waaw mu leer naññi ne nga xamee ne noonu la leen yàlla di may ñuy gis ya gën a làqatu ya gën a nëbbu ni mayoon Seydina Omar ba mu naan yaa yow saa yow saa eh, ndeysaan <laughs> yow saariya acca làqutalu ci daju yi boobu fekkee na ay kilomètre kilomètre moo dox seen diggante waaye yàlla may na ko gis booba waaw nee ñoom yàlla da leen may ñuy gis lu bare bare bare bari ñuy gis lu bari loo xam ne du ñëpp koy mën a gis loolu la koy maye nag mooy seen xol ba dafa amut ak lëndëm xol buy do nit ki xolam buy doog juddu ak leera ciy nekk nee ñu sax liir yeeg gone yi danañ faral di gis jinne yeeg ay malaaka lu ne ndax booba seen xol iñaan nekku ci rëy soxor waaye bu ñu tàmbalee màgg rek di tàmbali nag xol bi tàmbali di am ay tomb yu ñuul heure bu ñu amee jikko ju ñaaw rek wala ñu def jëf ju ñaaw rek su ko defee nag roo gi day tilim di tilim dem ba day du gisati nag ndeysaan waaw du gisati ñoom nag dañuy jéngu tërbiye seen bopp ba raxas seen xol ba mu set wicc ndeysaan dana ko wax léegi ci kanam ne ñoom dañuy fóot xol ni jigéen ji di fóote yére yu weex ba mu weexaat tar moo dañuy nëbb dañuy gis ya làqatu yaxwi nit ku baax kookee yaxwi dana làq diyaa an ak leer ka daw i shamsi gu mel ne leeruk jant bi xaysu naxaa fu mën a jëm yóbbaale leer ga yaxfa dana xejje dana cëru bihaa ci leer googu xam naa bihi bu dee ci naxu kulla saxsin wala ba kullu saxsin ñu ngi jéggalu jépp jëmm zistinaaraati kuy boromuk leerlu <laughs> nee nit ñu baax ñi yàlla daf leen defal leeruk baatin leerug baatin goo xam ne ab rëyaayam dana toll ne leerug jant bi waaye loolu nag ñi muy yitteel mooy ña nga xam ne dañoo bëgg ak leer ci wàllu baatin hmm. nee na jëpp jëmm joo xam ne bëgg ak leer ci wàllu baatin bu ñëwee ba jonjog ñoom rek kooka dana ci jële leer gu bare bare lépp lu mu bëgg ci leeru suñu borom rek jëmm jooje dana leen ko mën a jox te bokk na ci ak leer mooy koo xam ne boo toogee moom soxal ci yàlla dong lay nekk sa mbiri adduna yi yëpp da koy daal di fàtte koo xam ne boo ne koo jàkk rek mu def ci yow pëstéef ak yitte da nga yëg sa càggante ndeysaan kooku leeru suñu borom ga daal waaw tabarkàlla nee koo ci gis day làq ak leer goo xam ne day na ne jant bi fu mën a jëm fa la ko yóbbaale leer googee nag yaxsaa dana cëru bihi ci moom waaw diyaan bihi mooy gën a dëppook naxu foofu kullu saxsin jëpp jëmm istidaraat yi kuy boromuk leerlu yaxiibu dana fàddu moom nitu yàlla ki an kulli kawnin bàyyi fi bépp mbindeef lil mukawwini jëm ci aji bind mbindee fi nag za nuurin di boromuk leer asimin guy aji màgg wasirin ak sekkere min guyubaati gu bàyyi ko ci kumpay yàlla yi nee nit yàlla yi dañ fee bàyyi nit ñi dem jublu ca yàlla <laughs> waaw naasa fi aydi naas dama fee bàyyi nit ñi bàyyi fi li nit ñi am waaye ba ma demaatee ca yàlla nag mujj naa amaat lépp yàlla moom moomam lépp waaw boo bëggee ci jur gi da ngay romb jur gi rek dem ci borom jur gi rek waaw su ko moom bu la ci joxee ndigal nga am ci sañ-sañ waaye boo jekkee jekk nag defe ne jur gi ñoo la mën a may li nga bëgg da ngay sonn kon yaxiibu day fàddu waaw an an kulli kaw ne bàyyi fi mboolem adduna bi ak li ci biiram boole bàyyi fi mbindee fi lil mu kaw yi ne jëm ci aji bind mbindee fi nag zanuurin asimin di borom leer gu wax wasirin ak sekkare min ruyubaati bàyyi ko ci kumpay sunu borom yi subhanahu wa nit a tasoo fi seeni wax daa mën a xóot moo tax boo gisee gars yi dañu leen weddi rek ndeysaan waa ndax niveau yi daa tolluwut ñoom seeni wax daa fañ toll bu ñuy wax wax ja léeg day mën a xóot waaw moo taxit gaa yi nga xam ne ñoom xamuñu lu dul lu leer rek ñoom bu yëf yi xawee lëndam tuuti ci amuñu ak rafet njort dañuy daal di tàmbalee weddi ñoom seen yoon néew ci <laughs> tabaarkàlla mu ngi mel ne ku jàng science lool secret yi muy xam boo dajee koo xam ne moo xamul dara lu dul lu fàngaaral booy wax boo wëtnu ko dan la teg ab waxkatu lu dul dëgg waxkatu lu dul dëgg ndax yooya day xóot lool ci moom moo tax nitu yàlla ka dañ ne ko waaw euh, al aarif billahi moom mooy kan mu ne moom daal su ma koy def misaal dama naan kaana huna fa dhahaba moom daal mi ngi fi woon léegi waaye dem na ñu ne ko luy loolu mu ne kaa inun baa inun mi ngi toog waaye nekku fi <laughs> waaw mi ngi toog waaye nekku kaa inun jógu fi de nga ne ko waaw mu ne waaye baa inun nekku fi tamit luy loolu <laughs> kaana huna fa zahaba mooy mi ngi fi woon waaye daa dem mooy dafa yemoon ak nit ñi di yëg li nit ñi yëg waaye daa mujj bi mu yëgee yàlla nag daa mujj yëgatul dara lu dul yàlla nag kon léegi nekkatu fi mi ngi fi ci jëmm ji waaye ci wàllu yëg-yëg nekkatu fi ma ngi ca ma ngi ca suñu borom mi ngi fi waaye nekku fi tamit loolay teg mooy mi ngi fi ci jëmm ji nii boo koy xool mi ngi nii toog waaye xoolam ak xalaatam lépp dafa nekk ci yàlla moo tax man la nekku fi mi ngi fi nekku fi waaw maanaam wa lil mukawwini daa nuurin azimin wa sirrin min ghuyubaati Sëñ Tuubaa nee na ñoom ñu mën a yar nit lañu dañuy raxas xol waxoon naa ko nee na yamxu dañuy effacé xanil xal bi wala su xolu taalibi ba rey nan ay tir ay tilim tilim xat yu dan ni sihoo yoo xam ne dana taqal xol bi maxwal mugassali maxwal mugassili kem faruk kem raxasuk aji fóot ja xan saw bi najaasaati wala si yëre ya taqoon sobe nee na sëriñ bu mat sëriñ xool ab taalibeem bu ñëwee jox bàyyee ko boppam fekk xol ba ma nga tilim lool bëgg àdduna rëy nay ñaan soxor ak yu mel noona mooy yàlla bëgg nooflaay nee na da koy tërbiya di fóot xol ba ba xol ba seet wicc ni nga xamee ne eh, soxna si am am kartan lool xam ni muy fóote nga jox ko yére yoo xam dafa amoon sobe ni mu koy fóotee ba sobe sa dañ nga xam ne kenn du ko gisati muy ànd ak sobe sa nee na nu raw noona noon la nit yàlla yi di fóote seen xoli taalibe yi ndeysaan yonent bi sallallahu alayhi saxaaba ba nee na koon man de damaa jaaxle su ma toogee ak yow daal yàlla rek lay yëg du ma bëggati àdduna ak li ci biiram nangam nangam waaye su ma delloo ca marché ba ndem ca njaay ma ak yëfi commerçant yi ak yëfi jigéen ñi rek tàmbali daal di soppi ko yonent bi sallallahu alayhi mi ngi noonu waaw xanaa xamoo ne bu fekkoon da ngaa sax di toog ak man mën ngaa dem bay nuyanteek malaaka yi sax malaaka yi nekk say interlocuteur <laughs> waaw di jàmm santeeg ñoom ak nekk say morom daal ndax sa xol bi day set ndax bu ngeen toogee ci man seen xol bi day tàmbali di fóotu di fóotu di fóotu moo tax ngeen di tàmbali yëg ay mbir waaye bu ngeen demee nag xol bi nekkaat ca njaay maag eh, tabarkàlla yokkal ma jaay la ca wala dem ca jigéen ña caaxaan ya su ko dee xol ba daal di daal di daal di kiiwaat ndeysaan ulaaika al gaa yooyu daal laa yashqaa du texee di mukk jaliisuhum aji toogaaleeg ñoom is ngir yukk siboona danañu fàggul daa am téere yu bi ne yekk siboona defe naa bii ma tiim sax ci la bokk yekk siboona waaye yukk dana danañu fàggul al muridina taalibi asaadaati mboolem xeeti texe yi nee na gaa yi toogook ak ñoom dong boo ko defee ñu def ñu def la tarbiya bil xaal toog ak ñoom dong boo koy def sëñ Tuubaa euh, ca tasulu si xaar ba saan ba muy jàngal gone ya waxoon na ko nee na yéen gone yi kaay ma jox leen laabire goo xam ne da ngeen ci mën a jariñu àdduna ak àllaaxira li ma leen digal daal mooy bu ngeen doonee ay gone bu leen yittewoo lu dul yaru ak xam-xam te xam-xam bi dee leen ko mokkal di ko nafara te wattandiku leen di toog ak koo xam ne dafa dafa dafa leen yàq ku yàqu boo toogee moom mu yàq la waaye dee leen taqoog nag koo xam ne jaamukatu yàlla la dégg nga te ku ko topp mu yóbbu la ca yàlla lii la leen dénkoon ndeysaan yaa ayyuha sigaaru laa tastaxilu an ilhuda wa bilulumi staxilu fastaxilu bilxewqi wattilaawa wajtanibu majalis alshaqaawa bu leen fa toog ku ñuy toogal mu ne walaazimu man laa yasaalu aabida li rabbihi ilaa hudahu qaida koo xam ne bu ngeen toogee di waxtaan ba julli jot mu ne ah jàpp nga am nga ne nangam na tegaa jàpp julli gi jot na de waaw tabarkàllah waaw koo toogee boo toogee ba yàgg mu la ah, ndax euh, xasida nangam yaa ngi koy jàng am na solo de waaw ba yaa ngi fonk alxuraan boo xëyee de moom dee ko jiital waaw ah, yow yaa ngi ci marché bi mbaa doo def nangam gis nga ko dalay tërbiyee ndànk-ndànk <laughs> waaw kon gaa yu baax yi toogaale ñoom dong boo ko defee ñu tërbiyee la ba texe di moom da nga cee daal di génn ndax dafa mel ne dañ lay fàggul ak texe loolu ci ay jëf ak ay melo ak ay ndigal ak ay tere moo tax tuubaa boo firee baat bi da nga naan ak texe boo ko firiwul nag nga jël tuubaa mën nga ne àjjana rek tuubaa texe li abdin ñeel na bépp jaam muridin buy bu di ab taalibe wala buy aji nam mu jëm ca yàlla saadixin buy aji dëggal lahum ñeel leen ñoom gaa yu baax yi waaw bi xidmatin ci ab liggéey aw bi xubbin wala ci ak bëgg aw hadiyaati wala ci wala addiyaal wala joxe ay addiya nee na ñoom gaa yu baax yi ma doon wax nag naan la seen jikko mooy lii mooy lii nee na képp ko yàlla dogal képp ko yàlla dogal ngay ab jaamu yàlla bu yàlla ñor te loola di dëgg ci yow gaa yu baax yooyee boo leen soppee walla nga liggéeyee leen wala nga di leen addi yàlla loola mën nga caa jëlee texe gu rëy ak texe ñeel na leen waaw bu njëkk nag eh, tabarkaal bayit yu ñu bari dañoo defe ne bu ñu nee murit rek ñu defe ne mooy comme murit niñ ko baaxoo xamee Sénégal rek bu ñu nee murit mooy ñaan ak Sëñ Tuubaa déedéet ci tasawuf bu ñu nee murit liñ jublu rek mooy la ma la waxoon mooy saalik ki nga xam ne yàlla da koo ñor moo tax murit mooy firi loolu ki namm ki ki ki namm am volonté ki am volonté ndeysaan kon lahumoo gi day dellu ca gaa yu baax ya maanaam gaa yu baax yii may waxtaane waaw mu ne képp ku yàlla dimbale ba nga bëgg leen wala nga liggéey wala nga jox leen addiya kooku moo am na texe gu leer naññi am na texe gu leer naññi ndeysaan kon nag tuubaa texe li abdin dana ñeel bépp jaam muridin buy aji nam mu jëm ci yàlla saadixin te nam mu jëm ci yàlla nga nekk di dëgg ci moom dégg lahumoo moo daam bi xidmatin lahumoo aw bi xubbin lahum aw hadiyaat lahum nga di leen liggéeyal ñoom gaa yu baax yi may waxtaane wala nga bëgg leen wala nga di leen jox addiya loolu da nga ciy jëlee ak texe gu rëy rëy rëy rëy ndeysaan liggéey nag bari na mooy lépp loo xam ne danga nga koo def rek ngir rend leen ngir rendre leen service waaw bëgg leen sopp leen ngir jëmme yàlla ab nit ku baax foo gis nit ku baax rek bëgg ko rek mu xam daa bokk ci sa tariixa ak bokku ci ak ko ngir yàlla rek fala tuaadu man raaytum faahu yuxriju laa ilaha sëñ Tuubaa nee na naaloo amoon nañu de ñoom gaa yu baax yi may waxtaane bi xafwi rasuuli ci xeeñtu yonant bi al Mustafa kadi kuñ tànn lan lañ amoon rotaban ay daraja sallaa yàlla na dolli tedd nga alayhi ci moom ëllësi yàlla mi nga xam ne yoox ci day joxe almasiyaati ay may ñoom gaa yu baax yi naaloo amoon nañu rotaban ay martaba nga ne ko fu ñu ko jële woon mu ne bi xafwi rasuuli ci topp yonant bi sallallahu alayhi wa sallam al Mustafa kadi kuñu tànn topp gañ topp yonante ba moo leen may ay daraja kon ndekete ku bëgg ay daraja day foofu nga koy jëlee foofu nga koy jëlee ndeysaan waaw wala tatlubul karama illa bi taqwa suñ tubaa nee na teraanga moom bu leen ko wut ci lu dul ragal yàlla ndax ragal yàlla doo ngay teraanga ak tedd nga yàlla yàlla yàlla mi nga xam ne mooy joxe ay may nag maa ngi ñaan yàlla def ci yonante bi salaatu ak salaam allahu aalam